wax lu amal nit ñi fulla ak fayda lu moom waa ji nga xam ne. Mhm. da nga moom xel mi nekku fi. d'accord yow yow moom xam nañ ne sa xel fi te bokk nga ci ñi nga xamante ni eh, tey jii bu ñu nekkee ci internet bi dañuy faral di wax ay wax yoo xamante ni maa ngi koy wax sànq ci sama introduction yu toll ni man mi toog ku ne xam na ni ma toll. donc mu nekk eh, ay wax yu rëy daal wax dëgg neex yàlla. Eh, dara wax ban wax moo rëy am na wax joo xamante ni. dégg naa moom seetaan naa toog naa di seetaan télé bi gi. Mhm. dégg mu ne animateur yi ku ci dee safara Sénégal nga jëm. wax message bu moo ne ko xam naa ne yow ak képp ku demoon ca Waly ba dañuy dem dans le vif du sujet rek. Waly Seck coow ak. Waly ñoom ñëppay dem man maa fa woon donc euh, lan moo tax. yaa ngi ci Waly. waa maa ngi fa woon waaw. maa tuub nga. ndax tuub naa. tuuba ko ba léegi. ah déet xam nga mës naa la gis. ci ay yëfi waale donc bu tuub di am ñun ñëppay laax tuub foofu moo si gisee ci yëfi waale non am na montre boo ko jottali woon de hmm, teg ci astaghfirullah waaw ah, ko ci teg boo ma ci leeralee ma wax yàlla dafa wax ci alquran ne mhm. kàccoor waaw mooy koo xam ne hmm. da ngay wax information boo xam ne vérifié ko boo ma ko leeralee dootuma kàccoor ah, voilà daa naa ko leeralal ayca boo waxati dara da da ngay laaj ñu leeralal la waaye boo jëkki-jëkki juge ma te waxaguma hmm. da ngay juge guma la yaa joxe montre yow euh, da nga jiitu ci safara. Oh. nga ne man maa safara il faut que nit ñu xam ne nit ñi fa ñu xam ne il faut que ñu jàng seen islam. Mm-hmm. muy man islam. Mm-hmm. man ak Kama mm. demee ba doomu aadama taxawee di wax discours yàlla yàlla mu ko na ko yàlla waxee ñu ne ko waajal mm-hmm. li mu tekk mooy ñun jàng suñu diine. Mm. ñëpp xam nañ ne musique dafa araam. ñoo xam nañ ko xam nga. Mm. xam fu yàlla waxee ci alquran ne képp koo xam ne da ngay produire musique moo xam télé nga yor di publicité pour musique hmm. wala YouTube wala statut musique pour fu muy amee pour nit ñu dem fa dafa xaraam te képp ku ko jëfandikoo boo ko bawut yàlla nee na sa mbugal ëllëg yowmal xiyaam sa yow eh, micro boobu nga yor dañ ciy woy souvent de moom te yow yàgg am na ñu ko jiitu sax waale am na ñu ko jiitu yeneen artiste fi nekk te yow micro bi képp ku ci taxaw woy ci woy ci uh-huh. moom la concerne ma li ma ci wax uh-huh. loolu moom ma concerne d'accord beneen bi musique dafa xaraam képp ku demoon ci soirée Wally Seck ba fi ma tudd waxee yow nii tuubagoo tuubagoo bu mën a doolaa wax tuubagoo tuuboogoo hmm. dawal tuubi billaahi boo koy deewaalee li jàng ci alquran hmm. safara nga jëm de. dafa am lu la yàlla may looy gis safara wala man xam nga alquran xam nga il faut ngeen xam benn affaire. Ah. yàlla def ñu digal ajana. Hmm. ne taxi ku ajana nga jëm. mu taxi ne ku def li safara nga jëm. da nga fa dem xam nga leer il faut il faut aussi comprendre que ñun li ñu daan faral di gis ci gisaanekat gis lu baaxul luy ñëw. mu hmm. daal di euh, woo presse bi leen. bu ma bi lii la lii ak lii. dafa hmm. lay te xam na li ngay wax nii. Hmm. loolu la waaw non may ma rek mu ñëw euh, moom da koy def ay moromam di ko def. mais yow a chaque fois rek da ngay naan di bu ngeen dee dinañ leen lakk dinañ leen lii dinañ leen laa. est-ce que nit ñi ngi koy wax xamuñu ko est-ce que. Euh, leen saafaraal daal dalal leen. fi nga toog gisoo aljanna safara rek nga gis. mais man di wax ma ne xam nga yow muuru la. daan naa. mu ah. muuru. da nga teggeel faas. ce que xam nga ne ñëpp ñi may seetaan. Ah. seen TV am na ay ustaas. Ah. laaj leen ko mboolem jigéen ju teggeel faas muuru. nga teggeel faas wala bopp neen. bërëb ba ngay liggéeyee wala mbedd ma nga jaar wala dëkk ba nga nekk malaaka bu am yéen maanaam du fa jaar. fii dara tàkk kon seen TV bi kon seen TV malaaka yi duñ fi jaar. loolu su ma nekkul ci man charia lay wax. Hmm. mu mel ni li film soo ko waxee nag dañ naan da nga jugal nekk safara waaye mboolem jigéen boo xam ne yaa ngi def bopp neen wala teg hmm. moo jaar malaaka bu am yemande fa jaar. malaaka boo yemande nag bu fa jaar mais mais yàlla ci yéen man dem lay àtte nag sëñ Moustapha wala loolu tam. ma ne la ay defal la rek ma ne la. képp ku bañ a dem tribunal ñu jugé la dóor la peine bu la jommal. Mhm. tegul ci njub avant ngay jàkkar kii wax léegi nee na ñaan lu muy am am doole njub ko gën. Mhm. jub nag mooy tegu ci siraatal mustaqim na ñooy bu dee yàlla na ko maa ngi nii fa lu la neex. gis nga mhm. jaamu yàlla taxul ñu dem ajana. def lu bon taxul ñu dem waaye nit day nekk ci yoon bu baax ba dee ñëpp am ci moom yaakaar ah. mu ngi àjjana. mais may may may may waykat montre nag loolu ci yàlla wax. te ma wax la benn affaire. nee na montre du du moom. ma wax la benn affaire ñuy jàng alxuraan ñëpp jàng nañ ne safara moom day fees dal te logement àjjana moom yàlla amul effectif bu ko doy. Hmm. loolu li muy tekki mooy safara ñun jullit ñi ña dem ak xeefeer yi ñu ëpp ñu dugg àjjana. Hmm. ndax tey yaa ngi may bàkkaar loo yaa ngi bàkkaar loo ci cër yi laay teg. seen toogaay bii. Hmm. ba nga toogee ba léegi. Bakar ba ngay dem. ndax la waaw. Sharia da ko tere lii. kon yow ni nga toogee noonu Bakar ba ngay dem la maa ngi Bakar. Hmm. beneen maa ngi lay xool te Sharia a ko tere. Hmm. waaye liñ bëgg waaye liñ bëgg a jàngale. madame Diop loolu accusation la dañ lay dugal ci loolu euh, da nga wax ne accusation la. yaa ngi bëgg a wax li sama xel. Oh. sa xel de yaa ngi xool kii xam nga xam nga li may maa damay wax. yàlla tere xool jigéen yàlla foo benn yoon. allez boo ko ñaarilee bàkkaar ba na nga ñettal ko ba dugg na. nga jëmoo téléphone am njaalo na. nga ko téléphone njaalo commencé na ngeen toog njaalo commencé na. ngeen tëj na ngeen sëy ñu dul ba yi njaaloo kon yow li nga njaaloo bari na de. ñaari eh, non bu dee njaaloo boobu ngay wax. dëkk bi moo tax ma ne la safara de fees. waaye yow safara rek ngay gis man tamit loolu jaaxal na xam internet yi nee nañ da ngay acharné wu ci benn nit acharné wu ci benn jëmm acharné wu ci lenn wala acharné wu ci benn mouvement maanaam yow safara rek diw day dee diw day tàng diw dañ koy lakk dañ koy saaf waaw mais tabaski ngi ñëw mosuma taxaw ne nit dana faatu te ah, man dama koy wax ah, ñuy faatu da ngeen di gis damay taxaw ne gént naa gis génne sarax wax naa ko nit na génne si sinon nangam mu leen neexee ngeen dagg ko ci internet ngeen teg dana fii léegi. Uh-huh. ki mu ko mujjee def mooy ki mu jógee bu yàggul. la. wër bi léegi ci internet bi. ok tudd ko wax six mois mu gënaat. yow gisoo ni boo waxee nit day faatu doo indi njàqareeg tiis ci xelu jàmbur. loolu tiitoo ci yow parce que xam nga man sëñ bi. xam nga sa morom mën na génn am li ko yàlla li la yàlla may mën na koo may keneen mu génn ne yow dangay ngay faatu te bu boobaa da nga génn ne yow doo faatu ndax leer na la ne li ko yàlla may may na la ko yow mii. waaw da ngay bu ne nit da ngay fen loolu na leer benn ñaaw na de. mais ma ko benn affaire. Serigne bu ne nit du faat. mais ma ko benn affaire il faut que ngeen xam ne man waxuma juge wu ma. Hmm.